ci kilifteefu njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall ak ndigalu xalifu Medina Baye Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ak bu imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé imam de la grande mosquée bu Medina Baye ak i teewaayu Abdoul Latif Coulibaly ministre de la culture ak Serigne Mbacké Sakho ministre conseiller chargé des affaires religieuses ak bu Cheikh Mouhamadoul Amine Ibrahima Niass di Baba Lamine représentant wu xalif bi ci Ndakaaru ak bu cheikh Mouhamadou Khoureychi Ibrahima Niass président national Jamiatul Ansaruddin Cheikh Baye Cissé di muxadam di responsable moral lu daayira jamiyatul axdi xidmatu Cheikh Ibrahima Niass ak taalibe yépp ñoo leen di woo ci bés bu mag di bésu jërëjëfee Baye di bésu conférence bu ñu jagleel l'islam te boroom xam-xam bu mag bi di Cheikh Mounhamina Ibrahima Niass di doom ci Cheikh al Islam Baye Niass fas yéene fa amal waxtaan wu rëy kañ lay doon dimanche yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier 2018 ca CICES bu ñaari waxtu jotee gannaaw waxtaan woowu benn bu mag bu ay borom xam-xam yu mag a mag séq ñu demee ni docteur Abdoul Aziz Kébé di universitaire bu mag di islamologue délégué général au pèlerinage à la Mecque ak professeur Djibi Diakhaté di sociologue ak oustaz Alioune Sall di islamologue ak Cheikh bay Mamoun Ibrahima Niass di islamologue itam ak Ahmed Saloum Dieng président mouvement Nas ak le ministre Bamba Ndiaye itam di islamologue bu mag a mag dinañu fa waxtaane lu jëm ci solidarité islamique développement maanaam déggoo ak jàmmoo ci biir lislaam ak koom-koom xew-xew bu ren bi nag ñu ngi ko jagleel soxna Seyda Fatima Zahra Ibrahima Niass cérémonie officielle bi kii di monsieur Abdou Latif Coulibaly ministre de la culture moo koy jiite bu ñetti waxtu jotee ci ngoon kon ñu ngi ci woo ñëpp nag dimanche yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier bu ñaari waxtu jotee ca CICES déggoo ak jàmmoo ci biir lislaam ak koom-koom ci biir Sénégal ci Afrique ak ci biir adduna bi yëpp. Barhama Sous le patronage de son excellence m Macky Sall, le président de la République, sous la bénédiction du khalife de Médina Baye, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, de l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé, imam de la grande mosquée de Médina Baye et sous la présidence effective de Abdoul Latif Coulibaly ministre de la culture Serigne Mbacké Sakho ministre conseiller chargé des affaires religieuses en présence de Cheikh Mouhamadoul Amine Ibrahima Niass di Baba Lamine représentant du Khalife à et de Cheikh Mouhamadoul Khoureychi Ibrahima Niass président national Jamiatul Ansaruddin Cheikh Baye Cissé Moukhadam et responsable moral du Daïra Jamiatul li Akhli Khidmatou Cheikh Ibrahima Niass et tous les fidèles talibés vous invitent à la grande journée conférence Jërëjëf Baye dédiée à l'islam le dimanche 28 janvier 2018 au CICES et introduite par le grand conférencier international Cheikh Mounhamina Ibrahima Niass fils de Cheikh Al Islam Baye Niass. Cette conférence sera suivie d'un panel sur le thème la solidarité islamique, la paix et le développement et sera animée par de grands islamologues et sociologues de renom, docteur Abdoul Aziz universitaire, anthropologue, délégué général au pèlerinage à la Mecque, professeur Djibi Diaraté, sociologue, Oustage Alunsal, islamologue, Cher Baye Mamoun Ibrahim Niass, islamologue, Ahmed Saloum Dieng, président mouvement NAS et le ministre Bamandiaï, islamologue. L'événement religieux de cette année est dédié à Seyda Fatima Zahra Ibrahim Niass. La cérémonie officielle sera présidée par M. Abdoulatif Koulibaly, ministre de la Culture, à partir de 15h. Tous au 6 le dimanche janvier à 14 pour la solidarité islamique, la paix et le développement au Sénégal, en Afrique et dans le monde.